Mes salutations. Euh, minutes, oui, Merci beaucoup, Président. Mes salutations à Monsieur le ministre des collectivités territoriales, le ministre des Finances, du Travail, le directeur du budget, vos collaborateurs, mes chers collègues députés. Monsieur le ministre, parmi vos collaborateurs, j'en cite la secrétaire générale Mabsan Ndiaye, le directeur de cabinet Pape Baré, euh, que nous remercions de passage parce que nous sommes au ministère de l'éducation nationale nous yow Je salue en même temps le Daj, Madame Lalla Aïcha le directeur PNDEL, le directeur de ADN. Monsieur le ministre, je vous félicite ci choix bi nga son excellence président de la république def ko porte ci yow nga ministère de la formation professionnelle de éducation nationale la collectivité territoriale ministère de ma sa jaar marqué nga fa sa empreinte ñu am yaakaar nag ci ministère bi nga xamné ne da la ko jox Kena a da nga fa def ay résultats yu mucc ayib monsieur le ministre à quand l'extension du foncier de Dara vers la commune de Tiamen passe pour l'implantation d'infrastructures de développement de notre commune mais il koo wax nag fii monsieur le ministre que le Daara ak le Pass dafa mel un neuf. ñun sommes jaune bi Thiamène Nous blanc bi ñu wër ñu et actuellement ku ne xam la ville de la commune de et est surpeuplée monsieur le ministre pour les fonds de dotation depuis 1996 il y a une évolution mais nous gis na vraiment dafa xaw a trop. Nous voulons, monsieur le ministre avec la population qui est multipliée par quatre nous voulons nga xoolal loolu bu baax au niveau de la commune de Dara monsieur le ministre les communes rurales n'ont pas de ressources donc nous avons ne war ngeen augmenter fonds de dotation les fonds de concours la CELS et le et le PNDEL monsieur le ministre je ñëw nag ci li nga les cantines scolaires demeurent un intrant de qualité nga liggéey ko nag ci éducation nationale liggéey bu ci ayib kon ma yaakaar na tey bu yàlla dogalee nga ñëw ci les collectivités territoriales barki démb rek son excellence le président la république taxaw avec lay daara am lu mu ci wax pour les cantines scolaires yaakaar naa ne tey ci collectivité bii da nga ci taxaw taxaw bu mucc ayib surtout nag sa maire yi wax naa leen ne dañoo war a dugal seen loxo ci les cantines scolaires xam na am nañ ci wàll ma bëggoon nag monsieur le ministre nga accompagner ñu bu baax a baax avec le réseau qui est à l'Assemblée nationale ñu liggéey ci cantine yooyu ma xool nag ci lan nga ñu ci war a mën a jàppale ñu xool son excellence le président de la république rek ma di ci ñëwaat ci importance bi mu jox l'alimentation scolaire donc monsieur le ministre ñoo ngi am yaakaar bu baax a baax ci sa ministère bi avec les daara xam naa ne dañ ci dugal sa loxo ndax loo xam la loo bëgg la te loo liggéey la monsieur le ministre ma gis tim na tey avec le PNDL vraiment war nañu gën a mën a taxaw pour jàppale les femmes monsieur le ministre l'importance du Pakassane, ku na nous ne PACASEN liggéey ci biir réew mi ñoom nous ñu bëgg ñu gën taxaw ci gën vraiment le monde rural en dernière instance monsieur le ministre je salue vos efforts et sacrifices dans vos différents ministères respectifs monsieur le ministre nous di la ñaanal nag plein succès ci ministère bi nga son excellence le président de la république dafa am yaakaar lool ci yow jox la ko may dellusiwaat ci les daara avec les cantines scolaires les écoles les mères, avec les cantines scolaires ñu dugal ci seen loxo xam na xale dafa war a lekk xam na xale bu dara nekkul ci biiram du mën suivre en classe te ñooy suñu yaakaar yi ëllëg ñoom la ñu war a tabax defar leen ba nga xam ne bu ëllëgee ñu amee réew mi kon monsieur le ministre maa ngi lay saluer waat di la remercier waat merci beaucoup. merci cher collègue.